dëgg la booy wax ngir bëgg dara jaal ñi ngay waxal doo wax dëgg dëgg la booy wax ngir di ci seeni lu nday jox doo wax dëgg dëgg la doomi jullit piir su ko jantam natt tiimee na ubbi néegum muñ te dugg ca te xam ne yàllaay séddale wërsëgu àddina buul la ku sa numéro génn nga jot wér na ku sol dàllu mbaax te éggoo ci mbaax nag ñett keppatee nga dem hmm. yàkkamti waaw ñàkk a maandu gis sa bopp est-ce que boo yàkkamtee ñàkk ñi muñ hmm. boo maanduwul ñàkk ñi maandu hmm. boo gisee sa bopp ñàkk ñam fayda mm-hmm. barke boo ko riñaanee mu jàpp la waaw bërsëg boo ko forcé mu dëpp waaw daraja boo ko sàkkulee sa bopp mu sonal la kon baatum ñëpp a yam ci mm. ñetti poye la juddoo ñëpp doomu aadama la waaw ku juddu di liir ku deeni ceel waaw waaw ah waaw gi nit ñu wuute nag juróom benni wuute la danoo wuute fu ñu juddoo waaw wuute nun juddoo uh-huh. wuute nu ñuy wute wuute fu ñuy amee bu ñu wutee ba am wuute fu ñu koy dugal waaw loolaa lay xamal ne la bu ñëpp yaman kenn du tawat kenn soxla déedéet bii jamono nag mm-hmm. boo bokkee ci askan yaatu te amoo xaalis mm. mbooloo moo dëngmal say bokk pëcc loolu dina waxuñu ne ko dandaa seen noppi alal li àddina ko muy tax a ñaaw mm. di nga dem ba hôpital fekk fa boromi carte grise ak étage ñu jox ko diggi kaasi meew naan ko teg ko kon jëru ko déedéet amul kon ku baax wettili ko dëgg la ku yaru falu uh-huh. ku réew réer ku rëy ñàkk ña boroomi million bu hmm. ko xaj mattee jëru nga yedd xaj ba ñaari xaj lañ waaw ndax su baaxan wettili ku ba xaj ko maat mbaa mu ko timb mu ko jot wallaay dëgg la donoon nag kala hmm. waaye mela kala yar kala yar cala yàlla tàggatale ñaari deel nag bàyyeeg ñun rek muy daara ak dayire baa siin mi mara baa siin siin séefar mi marchandise tubaab jeex na <laughs> boo jàngul jongoo takkoo tekki woon ak walaa kaana tubaab yi wareelu nga wër na waaw dënd ak tamaak sabar bañ bëggee siiw lan dem jëwal uh-huh. waaye jalaaw bay leen juddoo waaw tabalaay seen sëriñ moom mi tëggal islaam est bala ngaa xam ne donoo dër nag nga dàq ji nax ba dañum ñàkk te kenn du ko sikkil dëggu bopp da koo donn da koo donn kenn du ko dono kala jur uh-huh. waaye mela kala yar kala yar sëppin bu rafet muy taxawaale ci dëkk gor su nem na uh-huh. ndax golo am na nday golo baay ko maam golo koo seen xam ne yaari golo ko jur waaw golo jërmi la kenn gënu ko judd waaye jikko jaa tool bu mu dugg yàq ko baykat bu ko seeni nekkoog dee kon ñu defar jikko yi bala ñoo dem ci juddu yi dëgg la góor ñeenti sikk jigéen ñeent sikk la am mm-hmm. ñeenti sikki góor nag mooy xaste ak dóor ak fiir ba mu ëpp ak ragal njël waaw ñeenti jigéen mooy soxor siis bañ gan bëgg nelaw ba ëpp waaw jigéen bu ëmbee rek ba xàmmi ko naa xam doom ji mu ëmb su juddoo ni muy mel. jigéen su ëmbee doom ji baax. waaw koñ bu mu nekk. Mhm. lu mu romboon te gis ko dañuy yekkwaan la mu yëg. ndeysaan doom jaa nga ëmbal si ci biirum ndayam ci biirum waaye jigéen ba mbee doom ji bon ëtt bu mu dijji dañ ko fay romb bu këdd ko ciw taat jugal taxani mbangarooti biir du fal biir du fal dëgg la waaw a wér sëy boo gis ci jigéen tiir bi naaram doomi ci juddoo suñu màggee ñoo koy siisi barke bu ko bàyyi aman ba koy joxe kam gënoon am ndayam la koy jox da koy jox dëgg la. ndax yaar ba xisee dañ mën doomu aadama bi def mënu koo faj. da ngay daw reefu kenn mënu koo faj. moo tax ñett kenn du ci jëlee ndam. Hmm. yafalu màggat. waaw faj ku reef. suuxat mboob. kenn du ci jëlee ndam déedéet lay wax nga dëgg. suuxat mboob. yafalu màggat. faj ku reef. suuxat mboob kenn du ci foo koy jëlee boo ronoog guy nag séenoom tàgg ca kaw ah. bu la cëg dégg jaamee da lay bett rek ndax danga ko dul boobu waaw jigéen ji nga xam ne lépp loo xam ne jëkkëram wax na ko ko mu teg ca ganeen kàddu hmm. booy bañ sa jabar mottali sa kàddu bu mottali sa dépasse waaw jigéen bu mottalee sa dépasse mottali sa kàddu dëgg la koo mënta régal mënoo koo réglé déedéet dëgg nag bu duggee ci bureau ta génn mag la ñay ndax dañ ni mag mat naa ba ci dëkk ma ne xanaa bu dee mu jub mu jub bu dee mag mu dëng jikkoy sawara dong la yor sawaraay xëy dëkk ba néegi ne goy bu ngoonee jongamaay damug nit delloo si mbaa kenn reer waaw waaw boo dem ci dëkk nag ñaari tànk bu du soo ñeenantëri borom kër gu amul baat këram ak borom lal bu maat waaw du ko sa ah, waaw <laughs> yàlla dimbali génn la ci askanu yaatu ah. sa baay tànn la jigéen jiw muy sa yaay ah. boo màggee fay daana des foo màggee sol sa dàllu bàyyi uh-huh. mu fees dell sa tànk nga sol sa mbubbum bàyyi kenn wóombu ko lu la sa